ñaawlu mooy li nga xam ne moom lay faral di wax déshumanisation de l' espace politique. c'est-à-dire. et cette de l' espace politique dafa dem ba nekk une déshumanisation de l' espace social au Sénégal. Hmm. maanaam da ngay gis ay nit yoo xam ne euh, tolof tolof yu yenn doomu aadama yi am ku su mel ni Ousmane Sonko ak ñeneen ñoo xam ne jamono ji ñi ngi dans les liens de la détention am ñoo xam ne dafa mel ni mbégte lañ ciy jëlee. dafa am ñoo xam ne aujourd'hui il se pose des questions avec ironie dem bay naan nit bu dem ba def ñaar fukki fan grève de la faim ba pare di nokki sax en réalité jaaxal nañu ndaxam ndëkkiwul ndaxam njogonalul ndaxam dóoruñu ko sombi en réalité on se pose des questions sur aujourd'hui la comportement ak wax yi nga xam ne dañ koy dégg ñu koy yëkkati te loolu guléet parce que xamuñu ko woon Sénégal je pense qu'aujourd'hui à piir pire ennemi sa noon bi nga xam ne moom nga gën a amal problème am na yenn jafe-jafe yoo xam ne sax doo ko ko yéene mastamaak nag ngay nit di doomu nit ngay baay muy baay ngay soxna kee di soxna ngay doom kee di doom ba pare nag yow amaana ngay dem ba koy bind ba koy xaatim bay ñeme kàddu di ko yëkkatee noonu en réalité on doit se poser des questions tey nii quand on te dit kii fa mu tëdd day tappale wala nit naan la foogoon nañu géeree la nekkate tapette la en réalité je pose des questions nit kooku doon di yëkkati kàddu yooyu ban façon ngi nit la je pas la pour donner des leçons mm. mais dafa am loo xam ne ñu ñoo ko bokk je pense que am na foo xam ne waruñu fa tàbbi mais aujourd'hui on a franchi au de la la ligne rouge on a franchi au de la ligne rouge ba yegg si yenn niveau yoo xam ne on se pose en réalité des questions mais qu'est-ce qui se passe mm. pourquoi autant de déchirures sociales pourquoi autant de déchirures à tous les niveaux ba nga xam ne en ñun tous on se en chien de faïence dama koy faral di wax ay grand tas tas nañu ay dama koy faral di wax ay xarit tuddanteetuñu ay famille dama koy faral di wax da ngay dem si biir kër ku nekk tëju ndax lan des dissensions des divergences des distorsions loo xam ne si langue politique la juddoo mais war na euh, c'est pour ça qu'on avait hâte que euh, cette histoire Ousmane Sonko Adji Sarr jeex parce que on avait l'impression que peut-être euh, yu bëri peut-être foofu la. foofu la xam nga tey nii tey nii buñ la bu ma déggee ñu ñëw ñu jiñ leen ne man sama première réaction mooy weddi en attendant ñu may andil ay preuve pour wax ma ni lii moo ko def. c'est vrai te fii jamono jii da ngay gis ku far fii buñ ko jiñee day yooxu ne kii faral ki ñu koy waxatee respecté leen présomption d'innocence am nga dem fee kenn la respecté présomption mais mais loolu nag. je pense que c'est un droit universellement reconnu mhm. te doomu aadama képp koo xam ne jiñ nañ la dara laata ngay dugg ba naan moo ko def dangay ngay fàttali ko ni tant que justice condamné wu ko génne décision ni kii condamné nañ ko pour lii il bénéficie de la présomption d'innocence mm -hmm, bien sûr et je malheureusement fii on viole tout présomption d'innocence yoonu kenn ne ko si par rapport véritablement à des positions mm -hmm. et aujourd'hui la partisanerie à outrance dafa créer ay dissensions yoo xam ne yu doy waar mhm. nag boo ñëwee si li nga xam ne moo soxal liggéey bi nga xam ne en réalité société civile bi acteur politique yi dañ ko war a mën a bokk. mooy effectivement yëkkati kàddu jibal kàddu pour fàttali ni autorités yi seen wàllu bopp que ni loo ceecee nit ak lu mu doon doon doon ak luñ ko jiiñ jiiñ si jiiñ la la toll. jiiñ boobu ñu ko ñi si tollu nag dafa am ñoo xam ne dalay lay wóor na la biir na la ni am nañu toutes les garanties de représentation. garantie de représentation yi tax na kii di Ousmane Sonko je donne l'exemple étant donné que le sujet c'est le sujet principal bañ ko defee li nga xam ne moo di contrôle judiciaire avec le défunt juge Samba Sall nangu passeport am déggoo ba tey ñu ne la génn na Sénégal déggoo goo ko de déggoo ñu ne la génn na Sénégal invité nañ ko si collègue boo xam ne beneen la woon xawma Togo mais quand il en a formulé la demande mais dañoo bañ est-ce que réegul daa toog te pourtant am na koo xam ne jamono ji dañ ko defoon interdiction de sortie du territoire mu dugg gaal de Mauritanie. Mm-hmm. te aujourd'hui il siège au conseil des ministres et on n'en parle pas. <laughs> c'est des faits. donc c'est un deux poids euh, deux mesures à outrance. voilà donc suñu suivre sa logique. kenn nee nañ ko tu es tu es frappé d'interdiction du territoire Assemblée nationale levée immunité parlementaire am dañ ko dugal ci avion yóbbu ko Guinée. dañ ko dugal si avion yóbbu ko si Guinée yóbbu ko gine donc aujourd'hui dafa naa ni toll nañu benn niveau boo xam ne dafa am ay nit yoo xam ne situation bu ñuy dund xëy na benn arme la ñu am te man arme boobu dëgg la naam ñoom njëkkewuñu ko Sénégal duñ ko mujjee Sénégal njëkkee ñoo ko si kaw suuf duñ ko njëkkee mujjee si kaw suuf arme la boo xam ne ça dépasse l'espace politique gis nañu fi ay pères de famille âgés de soixante-dix ans ancien agent de la SIAS âgé de quatre-vingts ans am nak seen ay soxna ak seen ay doom regrouper wu def grève de la faim par rapport au passif social lié à man Sénégal à à à la SIAS et cetera et gis nañ fi itam ay mhm. étudiants def fi grève de la faim gis nañ fi yeneen secteur d'activité professionnelle ay acteurs def fa de la faim mais ya toujours eu une médiation am na nit yoo xam ne jóg nañu sol seen dàll. dem am na ñu waxtaanee gannaaw bu ñu rencontré autorités yi mais pourquoi voudrait-on que l'espace politique ñu ne effectivement non war ñu mën a waxtaan war ñu mën a trouver solution kii il est dans une situation de précarité absolue liée véritablement à sa à sa santé mhm. mais kooku du caagani nii bàyyi ko l'État aura reculé si constat ñenn ñi parce que perception la wala l'État est faible man dama koy faral di wax acte bu acte acte bu état mën a posé ak état mënut a faible ne ne l' état ne peut pas être faible c' est pas possible état ak lañ ko jox ak la mu yor si loxoom ak la mu mën moteur la boo xam ne bu ronfler fu mu fu accéléré fu mu dal foofu toj kon état mënul faible donc état boobu nag des fois dafay def li nga xam ni moo di reculade stratégique loo xam ne en réalité dafay wéy di gën a taaral suñu démocratie en réalité dafay wéyal. ngir nit yi war a mën a trouver solution moo tax société civile bi mhm. en réalité foofu nag la ñu war a liggéey liggéey pour wóyal li nga xam ni mooy cordon ombilical bi ñu ñu bañ kaa dagg parce que am na ñoo xam ne ñi ngi yore seen ciseau ñu ngi koy kapati waaye daggagul c'est pas encore pour véritablement renouer le fil du dialogue pour que acteurs yi war a mën a trouver des compromis parce que jusqu'à la veille de la présidentielle s'il y a lieu de dialoguer pour gën a mën a defar suñu démocratie gën kaa ñoŋal il faut dialoguer ba jour élection bi sax si matin bi laata ñuy ubbi bureau de vote s'il y a lieu de parler il faut se parler. s'inscrire toujours ci voilà donc acteurs yi itam société civile bi surtout. mais mais est-ce qu'ils ne sont pas dans cette logique Abdoulaye aussi. la société civile je ne dans son discours au-delà <coughs> de dire qu'il va qu'il va vraiment euh, montrer la fermeté. Mm mais bu ñu fàttali ni dans le même discours ubbi na benn brèche. yaa ngi xooman ne yaa ngi koy fàttaliku ubbi na brèche boo xam ne ku ko déglu bu baax dina xam ne kii il reste toujours ouvert au dialogue malgré le fait que am na ñoo xam ne nee nañu demuñu dialogue ñi demul dialogue ils ont la liberté et l'indépendance bañ a dem dialogue ñi dem dialogue ils ont la liberté et l'indépendance de prendre leur décision et d'aller au dialogue donc il faut quand même jàppee ko noonu parce que sous Abdoulaye Wade oui plus de dix appels au dialogue est-ce que opposition bi demoon na wuyu ji dañoo bañoon teg ay conditionnalité je pense que il faut quand même que ñuy nangu une chose que ni Sénégal gi nous sommes tous sénégalais Ottawa wax na ko nous avons tous la nationalité sénégalaise Sénégal gii lañ dëkk. kay ma nga Ranérou. Mhm. kay ma nga Orofondé kay ma nga Maka Koulibanta kële ma nga Ndar kële mi ngi feneen mais nous sommes tous sénégalais. aujourd'hui dañoo ku nekk dafa war bay waaram pour véritablement poursuivre la culture de la paix. adversité politique mënta ñàkk. encore une fois mais cette adversité politique ne saurait se transformer ou ne saurait être transformée en animosité politique ba nga xam ne dafa mel ni si jungle lañ nekk nous sommes sur un terrain politique oui acteur bi farul ak kii gannaaw suba mu farak moom acteur bi ak acteur bi ñoo faroon tey gannaaw suba ñoom ñaar ñu xaa xaajalikoo ku nekk dem yoonam politique moo moo lamboo noonu et de tradition je pense que loolu kenn mënu koo bañ mais je dis encore une fois kenn warta mën xaqataay surtout situation doomu aadama boo xam ne amaan na suba mën na leneen judd si leneen dal ko si ba pare ñu naan effectivement noonu la je pense que l'état warul yàgg doxalee noonu l'état reste fort l'état doit rester fort l'histoire doit rester ferme dañ koy tàmm di wax force doit rester à la loi mais il faut ñu si jiital léeg-léeg li nga xamoon lucidité à tout point de vue on ne peut pas parler euh, d'animosité warul sax am Euh, ani animosité et ça on va y on euh, avant may jox Aïda juste euh, honorable est-ce que tey par rapport ak lépp luñ fi luñ fi luñ fi wax tout à l'heure kii mu ngi koy wax Abdou on a l'impression des fois que day nekk acharnement Ousmane Sonko ak lépp peut-être lu muy lu muy représenté ak état de santé fu mu toll nii est-ce que gënul woon judicieux tey jii peut-être ñu ñu ñu bàyyi ko mu mu dem këram peut-être sous contrôle judiciaire wala en liberté provisoire quest que lan lañ waroon waroon def peut-être pour gën a rafetal cette démocratie honorable xam nga nen